Euh, li tax euh, ñu daje fii euh, mooy pour funérailles Pape Bouba Diop bi moo yokk tax ñu taxaw fii man dama doon football ba dem équipe nationale Pape Bouba maa jiitu équipe nationale bu Sénégal parce que ay ñoom Bokande ñoom Cheikh Seck ay ñoom kii Thierno ñoom ñun ñoo doon footballandoo benn équipe. parce que bu pap Bouba génnee àdduna ñun waa Tëngéej muy guy bëna muy keneen parce que boo gisee exemple peut-être ñu dajaloo fii. comme ni ki waxé ni parce que il faut ñu adresse affaire bi guy bën nga xamné association bo xamné mo fi jël coupe pour ñu mëna am fo xamné fa lañu amé repère parce que si fi lañu mëna mëna ñëw parce que ñom dañ jël coupe régional bi moo tax ñu ñëw fi pour ñu tok wax wa dëkk bi pour ñu mobiliser wu préparé muy saltige muy président Kora muy Abdou Salam Guèye muy François Goudia képp kuy doomu Tëngéej ñu ngi lay woo pour ñu ñëw ñu fekkee bés bi parce que ñun dañu doon football ba yàlla def ñu jeexal ñoom Pape ba ñëw continuer génération peut-être ñoom fi ñu yegg dem nañ ba coupe du monde quart de finale ñun yegguñu foofu ñun ñu ngi am Algérie 90 euh, yem demi-finale contre Algérie kon bu Pape Bouba génnee àdduna ñu war nañ mën a taxaw woo waa Tëngéej woo Sénégal yëpp pour ñëpp ñëw ñu mën a gunge Pape Bouba parce que këram laa jóge ni parce que bi ngeen bi ma kii di fa laa jógee parce que mu ngi ñëw mercredi jeudi lay ñëw bu ñëwee jeudi vendredi pour lañ koy de lañ koy lañ koy denc si li famille bi wax parce que ñu ngi defee terrain basket bi li ñu aménagé pour mëna a Sénégal ñëpp mën fa daje. parce que lolu mom information bo xamné yeen yéen yéen ko jëkk am parce que amul kenn ko xamné ni am na parce que bo gisé ñu commencé fi fi mu ne nii bu ñu joggé fi après lolu lañu lolu lool si dox. loolu la ñuy dox dem dox ko parce que fii fii lañ jékki pour gis waa guy bënn yi waxtaanee ak ñoom bu ñu waxtaanee ak ñoom ba pare léegi bu ñu fa jógee ñu dem seeti ASC yi ci des yëpp pour ñëpp mën a dajaloo parce que bi may ñëw ni maa ngi woo Mongol entraîneur euh, kii Njañ Samba pour bu ñu bu ñu paree fi ma informe parce que informé nekk conférence dañuy def benn waxtaan ak waa journaliste yi noo mën di def ñoom moom mu ne entraînement la ne mais bu ma fi jógee nii naa ko woo woo naa laay seen pour waxtana lay sen pour ñu nan organiser parce que ñun ancien footballeur yi nekk muy association parce que ñun ñoko jité muy une Mongol muy Marcel nous ñoo association nous ñun dinañ nan sensibiliser ASC pour waxtana pour ñu mëna